cabinet du eh, président de la République. donc ñëpp a ngi eh, teewlu rek eh, di waajal déglu li nga xam ni moom mooy le discours du chef de l'État ah, mu nekk discours bu mu fas yéene amal ci contexte boo xam ni tey ñu bari ñu ngi wax waxu ñaari julli ñu bëri ñu ngi wax aussi yeneen i maanaam. actualité boo xamante ni par exemple yaatu na bëri na xëy na sax mën nañ bañ a dugg lool ci li nga xam moom moo di politique bi waaye tey li gën a euh, am solo moom mooy euh, discours bi mu nar yëkkati rek daal di koy dénk sénégalais yi defe naa duñu def lu dul daal di taaxar tuuti rek déglu ko mu daal di euh, yëkkati ay kàddu dénk ko askanu Sénégal dénk ko umma islamique yow lan la ñuy xaar dem na non ngi ñëw papa lu bees gis ngeen ko noonu imam bi mu ngi ñëwaat moom lañ doon euh, taaxarlu léegi moom euh, day ñëw daal di euh, toog euh, ci wetu ki nga xam ne donc moom moo di le président de la république ngir ñu daal di mën a amal li nga xam ne donc moom mooy discours bi ñu nar a yëkkati bi président de la république Bassirou Diomaye Faye nar a yëkkati donc voilà gis nañ ko noonu imam Moussa Samb mu ngi noonu voilà. excellence euh, ginnaaw bi la baalu àq ñu bëgg a xam rek ci bés bu tedd bi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 test, one, Yes, yes, yes.